jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jërë ngeen jëf mbokk internet yu 5M TV Sénégal xibaar yi dañuy àddu ci kàddu yi nga xam ni kon Pape Alé Niang daal dina koy fësal ginnaaw gi di wane ni kon benn violence rek du am file ci réew mi nañ ko xamee noonu lañuy def violence kay tey jile mooy seen carte électeur yi nga xam ni kon yore nañ ko ñaar fukki fan juróom ci weeru février maanaam kon dañ koy rekk dem teg ji tànn ki nga xam ni kon kooku moo gën ci ñoom ñu daal di koy fësal nag boobee ñu daldi wax ci oustaz Oumar Sall moom mi nga xam ni jamono ji kon caabi da ko daldi féete ginnaaw ginnaaw ay kàddu yi nga xam ni kon yëkkati woon nañu ko jëme ko rek ci alxuraanu karim bile nak jëm itam ci uh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni kon loole tax nañu ñaawlu bu baax a baax moom uh, kilifa diine gi waaye itam rek jàngalekatu alxuraan lile nga xam ni daldi na koy wax suñu natango yile di waa kon ci talaata gi sax moom dañu rek daal di jublu ci ay mbiram ginnaaw rek ñu ni kon ma nga fekk baax foofee ca Pikine ñetti mbaar moom nag ca daara bu ñuy wax daaru cuub nag la daal di jàngee mu nekk ca département bu rufisk noonu nag la daal di tabax rek ab complexe islamique nag ay xale yu bare nekk fa mu leen di daal di jàngal ñu ni xale yooyee kon ñu ca bare sax seen wéyjur seen loxo jotul seen ginnaaw journal bi duñu xamal ni kon ginnaaw dundam moom oustaz Omar Sall mi ñu ni nag moom lépp da ko def rek ci jàngum alxuraan bi ndax nag ba mu amee juróom fukki at ak benn jëm ci li nga xam ne gis nañu ko nag foofee ca gox ba mu dëkk di ñetti mbaar ñu ni nekk na koo xam ni kon jàmbaar la jëm ci alxuraanu karim bi waaye itam rek ak koy jàngalee ndax foofee xale bari kon ña nga rek mu daal di leen di jàngal ci bile nag daara moom nag ñu ni fukki at ak ñetti ba mu ko amee nag moom yàgg na rek nekk ci alxuraan bi da cay jàng waaye la mu gënoon bëgg bokk na ci wàllu football ñu ni kon moom dafa doon daw rek ci mbedd yi daan def tànku neen ginnaaw googee di nag yore bal dem fu nekk nag jëm rek ci ay woy juróom yi nga xam ni kon daal dinañ koy jàngal alxuraanu karim bu sell bile tey jilee ñu ànd ceeg moom rek daal di xeex ak moom ba tax na tey jilee kon mu nekk rek oustaz ginnaaw yar bi nga xam ni yar nañu ko moom nag kàddu yi nga xam ni kon ci woon na ko loolee nag mu nekk loo xam ni metti na loolu ginnaaw li nga xam ni tey moom lañu rekk daal di dogal jëm ci kawam caabi daal di koy féete ginnaaw ñu ni sax nag ñoom ginnaaw gëstu bi nga xam ni def nañ ba ñu demee nag foofe ca kër gu mag gilee nekk ca caaroy foofe nga xam ni fa lañu ba fekk baayam ba ñu demee rekk fekk ko kuruus bi ci loxo bi ma ngay ñaan rekk jëm ci doomam waa itam rekk ñu daldi koy bàyyi ca nu mu gëna a gaawee ca noonu itam rekk ñu daldi koy jéggal ci li nga xam ni kon moom lañu ñu jot a dégg xam ni loole ab ndogal la rekk bu daldi di ñëw